rek eh, kii di eh, Cheikh Tidiane sëñ Cheikh Tidiane xam naa moom it eh, nga introduire ko mu commencé waxtaan. waa macha allah Cheikh gis nga pam Malick daal dina yëngal man nag ah, Pape Fall borom Renaissance Pape laa may guddi gi ak Aziz Ndiaye borom diwlin j'adore moom tërëndoom la moom. waaye Pape moom may naa ko guddi gi yaa sayda kooku sama xarit la bu ko defee Cheikh. Euh, dañu bëgg a dugal xaaji Mansour ci euh, Serigne Abdoul Aziz Al Amin nga daal di ko dalal bu ko defee nag bu ñëwee ba ci kanam question réponse yi sëñ Abdou daal dina yaatu macha allah Cheikh Tidiane. jërëjëf xaaj euh, Pape Malick Mbaye tabarakallahu xol yëpp fees na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam jaar ci Seydina Cheikh Ahmed Tijani borom tariqa bi waaye wàcc ci maam ji nga xam ne moom la ñuy tiitaroo te amuñu ku dul moom. Redal Maliki Cheikh Seyd El Hadji Malick maamu xalif général de Tidiane Cheikh Seyd Aboubacar Mouhamadin Mansour waaye tabarakallahu nga laal nag euh, daj dëpp gi nga xam ni mooy Seyd Aboubacar eh. radiallahu anhu borom bone kaara bi tabarakallahu ñëw nag ci mag ñi nga xam ni tey ñooy mbëru tarixa bi waaye ki ñu tax a daje tey nag euh, ayu jàmbur kenn du ci toggant eh. ki ñu tax a daje tey nag mooy euh, li may wax naan nit ku ne fa muy jóge di fa jage di fa jage su ko jigee du fa jóge Euh, sëriñ Abdoul Aziz Al Amin euh, dafa am génn góor gu baax a baax goo xam ni bu waxee rek àddu ci moom sama xel delem ci alxaaji Dudu Kenn Mbay ma koy nuyu ca way wu rëy wii mu wayoon ni doy nga mag ni doy nga ndaw ñi sëriñ Abdoul Aziz Al Amin doy na mag ni ndax dafa am benn baay ay baay yu bari dañ koo wër xam sëriñ Abdou bind ci moom waaye papa Sidi Alioune Boy bu ngu ba ngeewul moom laay tànn tey ci xasida bi nga xam ni dafoon daf ko defoon ci bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum sama turandoo làqoo jamono ñu teg ci juróom-benn weer boroom guddi gii tey spécial al amin moom tamit wan ñu ginnaaw dem tabaarakallahu waaye demul fa mu nekk tey mu ngi ñu jàkk di ñuy xool di ñuy seetaan ndax yàlla may na inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaye Baye Sidi Aline Boy dafa wax ni lawlal aminu ata min baadihi xalafan la raxa yuqliquna baadi musibati inna nubayicukum fi sirri wal alani ya saaiya al xayri fi rabti l alaqati falay tijee mooy les relations diplomatiques yi nga xam ni Serigne Abdoul Aziz Al Amin daana ko am digganteem ak ñi nga xam ni mooy réew yi nga xam ne tey Tijane Yaba ma nga fa lu mel ni Algérie waaye lu mel ni Maroc bi nga xam ni Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu fa la tëdd tabaarakallaahu dafa am benn turandoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane tey bu ma jokkool muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Kebe bu sama papa mbër Kebe ma koy nuyu de ko ziyaara dafa wax lu daw yaram daf ni dafa toog ci salle de classe en université fële ci Maroc benn professeur boo xam ne Sénégal gépp xam nañ ko daana ñëw fii sax ci euh, ndigalu sa majesté roi Mohammed VI daan teewal le royaume chérifien ci programme yi nga xam ni moom la Sénégal daan am rawatina Tiwaawan ak programme xadara bi Mouhamadou Bagdour yi moomu di jàngale di jàngale ba ci yàgg di tudd lu bari di joxe un exemple Serigne Abdoul Aziz El Amin étudiants yi nag ni ko nag jëmm jooju ñun mosuñu koo gis te ay diverses nationalités ñoo fi nekk lu tax cet homme est devenu un homme universel Mouhamad Bagdour yi dugg ci biir waaye am benn njëkkate boobu njaboot Serigne Abdoul Aziz mi ngi ci biir étudiants yi moom Cheikh Kébé moomu bind benn téere daan ni azizun alayya ko tudde tabarakallahu ne azizun lil jamia moom Seydi Abdul Aziz Al Amin li tax ma ni euh, euh, euh, fa dëhru yabki alayhi kulla thaniyatin bukal aradi alayhi wa samawati sëriñ Abdou kat fee yàlla séddee góor yàlla yu mag ya fa la ko séddee ndax tabarakallahu mag mii ko way def ni koo xam ne bi mu làqoo jamono ba léegi tabarakallahu asamaan daf ko jooy suuf jooy ko te Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Amin maa ngi koy nuyu bu baax jaarale ko ci sëriñ Babacar Sy Pape Aïda ak njabootu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yëpp dafa toog ci Espagne di nettali xaaj dul kenn mi ngi toog mu ni sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ñeenti fanam ci biir bameel dafa feeñu benn góor yàlla benn nitu yàlla ni ko man xawma woon taalibe yi nii lañ xëre ci man kon ne leen sant naa leen gërëm naa leen ndax mission bi c'est accompli waaye li ma la mën a wax mooy sëriñ Abdoul Aziz mooy yaa saa'iyan xayri fii rabtil alaqati fala la bëgg taxaw 30 secondes mooy les relations yi nga xam ne interconfrérique diggante tariqa yi nga xam ne am na ci Sénégal muy Touba muy Njaasaan muy Ñaseen muy Laayeen muy Canaba foo ci dem Serigne Abdoul Aziz Al Amin bu masaan ni tëll foofu wala ñooñu seen ko wala ñu fekk si ko Tiwaawan dañ koy gàttalu ak xol bu leer gàttandu ko li tubaab tuddee accueillir à bras ouverts ndax lan moom dafa sekkoon ak ñëpp jàmm muy relation diplomatique yi may wax ba tey génnu ci waaye nga ñëw ci relation yi nga xam ni amoon na ko ak les partis politiques de toutes les formations politiques confondues boo masaan jël sëñ Abdoul Aziz Al Amin mu taxaw ci biir Tiwaawan cérémonie bu mu mën a doon bu masaa def discours amul kenn kuy ñibbi ak frustration ñépp ci gis seen bopp parce que Sénégal moo ko ñoroon il était un patriote hors pair sëñ Abdoul moom may wax tabarakallahu ya saaxiya al xayri fii rabtil alaqaat yi dafa fexe ba les relations diplomatiques maa ngi koy fàttali léegi benn nit koro bi Roi Hassan II génnee àdduna sëriñ Abdoul Aziz moom la président Abdou Diouf bi nekkoon Sénégal jox avion bi tuddee euh, Pointe de Sangomar ni ko damaa bëgg nga tànn une délégation composé leen ci këru diina yi Sénégal yépp rawatina ñi noyyee Tijaniya ñu dem jaalal ma Roi Hassan II mi nga xam ne mooy bàyyi Mohammed VI koroog tabarakallahu sama wéjur mii alxaaji Cheikh Samb ci délégation bu la bokkoon excellence almarhum alxaaji Moustapha Cissé bu pire ci délégation bu la bokkoon alxaaji Alain Ndiaye bàyyi Abdoul Aziz Alain Ndiaye mii ca délégation bu la bokkoon ak alxaaji Mansour Mbaye ma koy nuyu baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi ci délégation bu la bokkoon grand sëriñ di Dakar almarhum alxaaji Bassirou Diagne Maram Diop ci délégation bu la bokkoon ñu ànd dugg ci Pointe Sangomar dem fa nga xam ne mooy Maroc pour jaalal Sénégal relation diplomatique yooyu tax na Sénégal état ak état lu ñu def ci diggante diplomatie dana rafet waaye sëriñ Abdoul Aziz daf ciy joué rôle bu rëy boobu moo tax Baye Sida Ali Mboy ni ko yaa saaiya alxayri fii rabtil alaqati ma ñëw ci xusta rida xusta rida min al ajdadi man sabaqu li xifdi hada turaasi taxta xibraati mooy ki nga xam ne làq na ngërëmal maam yi ak bàyyi tabaarakallahu ba ni nga xam ne tabaarakallahu mooy tariqa bi ak diine ji moom mooy ci kenn mu dugg ci xuus ci wala am lu mu ci yàq ndax moom jàppoon naa ni benn jour mas naa ko wax ci suñu ziaru coordination Jogine tijan ni ko bàyyi daal yow yaay ministre de l' intérieur bu tariqa Seydina Cheikh Ahmed Tijani Serigne Abdoul Aziz moomu tabarakallahu li tax ñu wax ko ni xusta rida min al ajdadi man sabaqu li xifdi hada turath mooy ndono li moom nga xam ne mooy tariqa bi mooy diine ji mooy mbokk gi mooy réew ku ne mën nga laal leneen waay loolu boo rek kenn nga am affaire mooy kii ñuy waxtaane tey kooku tabarakallahu li tax ñun ko am na expérience taxte xibraat yi da jëlee ci ba amee fukki at ak juróom benn sëriñ Babacar Si ni baayam tiim ko way ko wuy wurëy ni ko ilab ni ila ila ila ibni almahbub abdul azizi la zala fi himayati al azizi ñu teg ci loolu mun mbay am lu sëriñ Babacar Si am lu mu ko jox waaye turandoo bi ñu ko jox rek muy Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh nga xam ne mag ñi dañ daan defante lu baax Hadj Mohamed est-ce que yëg nga ni Serigne Modou Sy Dabakh mii ngay gis taaw Cheikh Hadj Abdoul Aziz bi mu gënee àdduna Serigne Babacar Sy dafa bind lettre de félicitation ni ko hadi an li dabbaaxil qulubi li rabbihi abshirhu mawlahu qurrata aynihi yónni ko maam Serigne Babacar Sy ni ko tey damaa ñëw pour bind lettre de pour dëggalal ci li ma gis ci kii nga xam ne mooy sa nagu bët ëllëg te mooy Cheikh Hadj Malick Maodo mii nga xam ne mooy taw Alaaji Abdou Aziz eh. kooku expérience am moom maam Abdou moo ko joxoon baatu kër gi ba sëriñ Abdou mii ñu waxtaane nekkoon porte parole kër gi yamuñu ci sëriñ Mansour borom daara ji ñëw ni ko yaay rakk ji sës ci mun rëkk te dooma rëkk yamuñu ci sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane yi su ma doon am taalibe man benn rek laa ci am mooy sëñ Abdou mii man xaw may atam waaye lu ma neex te ko ngir jomam ci Thiès la sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al toog ni ko soo ma ni woon defal sa loxo ci safara ma def ko ci te xam ne jàmm rek moo ci mujj tabarakallahu eh, sëriñ Pape Malick Sy radiyallahu anhu dafa mas a toog di nettali ay wax yoo xam ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane moo ko waxoon mu ni waaye loolu kenn dabu ci Serigne Abdoul Aziz ndax Serigne Cheikh bi muy formaté ay rakam ak njabootu Serigne Babacar radiyallahu anhu Serigne Abdou dafa taxaw mu ko ñetti laaj ni ko Serigne Abdou yaag Serigne Pam Malick mbaa di tooñ mu ni ko ñun sañuñu ko mu teg ci ñu ko mbaa du ngeen faral euh, di mu ni ko taluñu ko mu teg ci ne ko ne mbaa du ngeen tiitaru mu ni ko tiitaru yëfu daf la xam ni Serigne Abdou mii responsabilité am ak fi mu toll mata ni ko sëkk pour taaw li nga xam ne mooy euh, euh, euh, taxta xibraat yi mën a wax mooy expérience sëñ Moustapha Jamil radiallahu anhu xool sëñ Abdou Boug ba mu nekko ko mu ko yaay tampon bi nekk ci diggante ay wagon di leen taqale ba mu doon terrain su pousse bii nga yor nag di ñëw sa diggante kër maam moo la may tey grade bi nga am sëriñ Abdou liggéey na ci biir liggéey ci biti ba am kashfu bu ñëwee ci kanam dinaa wax lu tax Haj Mohamed. macha allah euh, Cheikh Tidiane waxtaan wi euh, neex na lool tabaarakallahu bu defee nag soxna Alima euh, waxtaan waa ngi bëgg a ibbi yaa kenn ku nekk ngeen bàyyi xel ni waxtaan waa ngi ibbi ñu daal di jàkkaarloo nag ki nga xam ne mooy Xaaji Mansour Xaaji Mansour dañuy dem ci dimension Serigne Abdoul Aziz Al Amin lu jiitu sëñ Abdou kan mooy way juróom bu góor. kan mooy way juróom bu jigéen ñu de daal di déparé foofu nag daal di yëkk ndax xam naa ni jamono ji tembe ah, ñu mel ne ñoom ah, Ousseynou Ngiraan nelawatuñu Ngiraan Sono ñoom Oustaz Omar Ndoy nelawatuñu ñoom Souley Diop dama bëggoon xam Serigne Abdou ci dimension ay way juróom ba pare ñu dugg sëñ Abdou ñoom alimaa ngi ñoom yaa seydaa ngi ñu nag yow ba mina naw mi waaw Oustaz Mouhamad <laughs> ginnaaw ba ñu échauffé tàngal moteur yi comme ni ñu ko digale jox jigéen ñeeg xale yi li ñu moom bala ñu dugg ci waxtaan bi dañuy nuyu ñetti nit ñaar ñi jàppale nañ ñu ci bi ñuy gëstu ci Serigne Abdou orienté nañ ñu ci thème bi kenn ki di ku nekk ci kër gi di suñu Serigne muy sëriñ Ibrahima Badiane yàlla def na suñu wayjur muy Oustaz Ousseynou Diène bi ñu nekkee xale mu joxoon ñu ko ginnaaw bi mu ko jàngalee mu jox ñu ko ñu nekk ci daara ji ba wàcc fa alquran 1997 mu jàngal ñu téere yu bari nag bi ñuy jóge ci ay loxoom yeewu nañu ci